jëf ci teewlu bi jàngeen jëf uh, ci ànd beeg Equivox TV télévision bi leen di bégal yéen ñii di amateuru làmb ñi ngi am mbégte bu baax encore waat ak yéen tey jii ci suñu JDA suñu journal de l'arène ma di ci ànd saa su ne ak l'incontournable Babacar Babacar nuyu naa la sama grand frère. <laughs> maa ngi lay fay sama rakk sama jigéen ah. Mhm. maa ngi lay fay yow tamit macha allah xam naa su ma nekkee l'incontournable tamit yow maanaam c'est un wala c'est professionnel macha allah li ngay def teg nga ko yoon macha allah. merci beaucoup waaw loolu moom am na maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur Equivox TV yëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàq si ñoom. merci beaucoup Babacar ñu dem seetaani ji suñu revue des titres te ñëwaat. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum Mm, jeudi 25 mars 2021 dañu ñëw ki yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey xëtam mu njëkk comme ca xëy fësal mooy Lac de Guiers numéro 2 ma war a jàkkaarloog Eumeu Sène la 4 avril Lac nag mu nga yuuxu ba baat ba sës maanaam daal fi mu nekk ni moom soo bëggee dëgg moom génn na slogan bu bees boo xam ne daal bu leer naññ la maanaam daal dof du wér ja daal daa mel ni fi mu nekk ni ju Eumeu Sène ja ah daa mel ni Lac fi mu nekk nii loolu la bëgg a jël wala kook la wax si ne jàkkaar lool suñu lamb xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu yëglikaay bi di suñu làmb xëy wax nu loolu bu nu continuer ci suñu làmb Yékini Senior moom ca États-Unis ga mu nekk fa la waxe ñii doon wax diggante ma Garga Mbossé naan combat ba ñëw na ci heure bu baax bi moom daal loo ci mën a dégg la mu xëy xam ne daal daa mel ne moom la mu gën a gis lenn la mooy boo Bordeaux troisième tigre de Fass ba daal la xëy sampal am dëndëm di wax ak moom Yékini Senior nee na ko li am ba des daal yow gi sa mag defoon ba mu ca tolloo may ñoom Lac de Guiers numéro bëre ak ñoom nee na yow foofu nga toll te fi mu nekk nii maesance nga war a def kon sama combat ak yow moo jaadu te itam Gaston Mbengue su ko bëggee Yékini Senior nee na ko Gaston man pare naa ndax Gris Bordeaux moom intéressé na ma moom lool te itam li ma bëgg mooy defante ak moom ba mu yëg ko bu baax a baax a baax loolu muy waxi nii mooy waxi Yékini Senior ma nga xam ne mu nga ci réewum États-Unis dafa tàggat boppam sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko beneen combat boo xam ne ñu ngi ko fi doon wax démb muy baabooy digganteem ak ama neex mel ni ki nag baaboy bu dee daa pare ngir bëreeg ama neex ama neex na ko maa la gën a pare bu dee yow costé nga def man maa costé ba sës ca raay ba boo paree rek pare naa te bis boo duggee ci man man ama neex yow baaboy boo dof dof la ba lekk sama avance moom jàppal danaa la dóor dóor yoo xam ne nii daal dina mel ni ba ngóor jaay mbàmmate na nopp yeru dem ndax dinaa la duma duma yu méttee méttee méttee méttee loolu ma waxee ama neex du sama ay wax ba tey bu ñu continuer ba nga xam ne ni moom moo di sunu làmb ñëw na ci biir yëglikaay ba tamit mu ngi xëy daal di xamal leneen loo xam ne nii daal lu jëm ci wàllum Kaolack la ak ka nga xam ne moom moo di maam Kor Faye ba nga xam ne daal fi mu nekk nii daal la mu fas yéene def daal mooy innové ginnaaw na bañ ko dénkee la nga xam ne nii moom moo di làmb ja ca région ba nga xam ne moom moo di ca Kaolack Malick ñi ngi moom la ko naqari ba mu xëy di ko wax moom ma nga xam ne nag moom mu nga xam ne moo jiite école de daal la kon metti mooy raison yi nga xam ne daal dafa mel ni des fa tere ñu organiser fa daal loolu la xëy tey di ci interpeller ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa CNC ba moom ma nga xam ne nii moom moo di Malick ñi ngi ba tey bu nu continuer waa CNC bu moom daa mel ni ñoom tamit fa fas ñëwee ne dem wala boog gaa yi dem ñu des la fas yéene def daal bokk na ci maanaam mercredi bu jotati ñu tëgg làmb tudde ko les mercredi de CNC maanaam 3 millions la ñu fas yéene teg ca mercredi ju njëkk ja tombeek la 7 avril yëglikaay ba xëy tey dina ko wax beneen gala boo xam ne nii tamit samedi 10 avril lay am fa nga xam ne nii moom moo di ca mbuur géej yëglikaay bi xëy na tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu 1 million daal la su fas yenee teg sunu làmb xëy tey dinu wax lu mel ni ki Eumeu Sène Eumeu daal yëglikaay bi jàpp na ne day champion la boo xam ne day mbirum revanche moom loo ci mën a dégg lu mu aaya la maanaam nga daan ko ngeen war a bëriwaat wala mu daan la ngeen war a bëriwaat yëglikaay bi ne Eumeu Sène daal ay rawaas moom lu mu mën a mën man la yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw wax nu lu mel nekk noonu Abdou Badji tamit ñëw na moom tamit di wax en tant que koo xam ne am na xam-xam ci Eumeu Sène wala combat ba ma xam ne war na ko seq ak nga xam ne nii moom moo di waa ki nga xam ne moo di Lac de Guiers mu mel nekk nag fi mu nekk nii daal ka nga xam ne moo di du jànjee ko tamit hommage bañ ko fas yéenee delloo samedi jii nu jëm te Fallou def ko jëm maanaam 4 millions ci arène nationale muy li simple loolu tamit yëglikaay bi ñëw na ci mel ni ki Fallou Ndiaye moo tamit démb Equivox su fekki woon na ko fa xam ne moo doon ci arène nationale mook estafam daal ñu nga doon xool arène ba démarche yaag nanu toogaay baag bu amateur yi dikkee samedi nu nu war a toogee mel ni ki daal loolu ab vidéo la doon ca Equivox mel ni dem foofu da nga dégg Fallou Ndiaye dégg ba nga xam ne ñoom lay liggéeyal ba tey li simple boobu daa mel ni samedi ja bu yëngutoo tamit dimanche ja yàgg tamit day day dikk yëngalaat de ndax jag sa tamit 3 millions la tegati fa nga xam ne moo di terrain gaal gi ca dimanche ja nga nga xam ne nii moom la ñu dëgmal mel ni daal soo na lool lool bi tamit mu ngi ñuy xamal ne wala boog ñu ngi jot ay xibaar yoo xam ne nii daal ñu ngi ñuy ne la 4 avril fa nga xam ne moo di ca ka nga xam ne moo di Ablaye Diop ma jiite som production moom tamit moom daal la mu fas yéene teg daal moo di mis laal la fas yéene teg fa nga xam ne nii moom moo di ca dëkkam këram ca stade municipal ba nga xam ne moo nekk fa nga xam ne moo di ca sum maanaam daal fi mu nekk nii daal lamb ji moom soo bëggee dégg-dégg daa mel ni jax na ba yegg ci lool lool ndax mis yi takkar naa na te ku ne xam na ne dimanche ji nu jëm tamit sëriñ Modou ñaa mu nga fa nga xam ne moo di ci arène nationale ci lamb ja nga xam ne moom mooy ànd ak dóor nam ko tàmmee def moom sëñ Modou maanaam at mu jot muy ubbi saison bi ci lambi door yëglikaay yi loolu la nu fi xëy tey andil ci lamb waaye ulimata mi ma làngal moom am na luñ koy tere waaye xam naa njuumte daa mënta ñàkk ndax Gaston Mbengue ak Gaston Berger lay jaawale Gaston berse nag dama yaakaar ab université la mu nekk ca Ndar waaye Gaston Mbengue moom mu ngi fii di ab promoteur nekk ci maris di tëgg ay làmb ñu koy ñaanal mu yàgg fi di ko ñaanal ñépp kon fàllu uli dootul juum ci loolu laa foog. voilà jërë ngeen jëf li moo nekkoon donc suñu revue des titres ah bu tey ñu doon ci ànd ak euh, Babacar Babacar tey euh, dañuy daal di rek euh, tijji ak suñu làmb mm-hmm. comme niñ ko faral di defee niñ koy faral di defee suñu làmb tey à une nag dafay wax ci combat diggante Lac de ak kii di Eumeu seen tey jii nag suñu làmb ne Lac à l'épreuve de Dof du Wér loo ñuy wax ci loolu tey jii Babacar. <laughs> waaw ku war a daje kuy tuddoo Dof du Wér am mm-hmm. xam nga ne am nga bés. Mm-hmm. Euh, boobu combat nag li ma si li ma si li ma si doon wax rek laa si continuer wax ko li ma parce que mm-hmm. dafa nekk combat boo xam ne. mënul yomb li tax mooy euh, la ñu daj la ñu dajoon seen ñaari combat yi njëkk bëri. bii di ñëw mën nañu mën nañu daj lu ko ëpp. mën a tamit gën a gaaw. waaye xalaat naa ni jël bu rëy dina ci am. loolu moom xalaat naa ko. dëgg la waaw parce que li tax mooy Eumeu Sène dafa jóge ci defet bu ko metti diggante ak Modou Lo bëriwulu ñu dóor ko mu daanu. Lac dëggee Guiers numéro am ndam ci kaw booy Niang mhm. ndam loo xam ne na ko amee donte jox nañ ko ko mais neexu ko parce que bu sañoon ca géew la ñu yëkkatee loxoom mais par recours la ko amee mhm. maanaam toog nañu fan bind recours yóbbu CNC mhm. après CNC xool vidéo yi jàngat dal di bind jox leen na leen yéen am ndam xam nga dégg te boobu ndam benn mbër gënalu la donte ndam la nag yaa ñaar ñaari mbir yooyu soo ko tegee da lay leer na ñaari mbir yi ku ci ne bëgg nga gi yoon booy ñëwaat nga def lu yey amateuru làmb yi def lu yey say supporter dëgg la maanaam ci bëre ci xeex loolu nag fi nekk nii dama naan béy wéy na parce que ñu ngi ci dernière tournage maanaam dernière réglage yi parce que la 4 avril ku ne xam ne na ñëw na jege dégg mhm. tey la ñaata tey la vingt cinq ay quelques jours su ma jumulee ay neuf jours wala yu mel noonu moom moo ci war a des mhm. kon li ñu ñaan yàlla mooy yegg ci ak jàmm fekk ko te dal ko mais xam naa daal di jaajëfal tamit le promoteur muy suñu papa Gaston Mbengue parce que li tax ma koy jaajëfal du dara mais dafa nekk nit bu nga xam ne 92 ba tey ku nekk ci benn milieu mhm. di ko doxal di ci yëngutu di ci wane sa bopp mhm. di ko taxaw saa yu ko laajee wax dëgg yàlla jar nga jaajëfal te tamit mag la tey nekkatul xale ku dem ba am ay sët macha allah yàlla na fi gën a yàgg nekkatuloo nekkatuloo xale te terewul mu ngi def le tout pour làmb di gën a dund di gën a sax ma ko ci jaajëfal di jaajëfal tamit kullu kuy promoteur parce que ñoom ñëpp am mérite quoi dëgg la Babacar yàlla nañu yàlla yóbbu ci jàmm ci bés boobu le 4 avril dañuy mm. euh, daal di dikk ak kii di Yekini Junior mi nga xam ne ma nga ca États-Unis moom nag nee na moo combat contre Gris Bordeaux et logique moom daal jàpp na ni moom Yekini Junior comme am ak Gris Bordeaux daal mooy li logique. waaw parce que xam nga comme démb du fi doon wax naan diggante ma Garga léegi nag comme Garga combat am ak Sa Thiès yàqu euh, euh, mooy combat bi. Mhm. xam naa loolu tax nag day bàyyi mu sedd mu génn wax. Mhm. ci sunu làmb xam la ne daal moom mhm. moom li mu jàppee mooy digganteem ak Gris moo nag yaa gën a bëgg a bëre ak Gris. boobu ba tey mu ngi koy wax. te itam c'est normal ah, parce que Gris Junior nekkul mbër mu ndaw. am lu mu def si làmb am na lu mu wane mhm. yaa ngi dégg donte xëy na ci biir carrière am na ay quelques jafe-jafe parce que carrière sportive tamit mooy doxe noonu mhm. des fois mu nekk ci niveau baax des fois mu xaw am ay jafe-jafe mais terewul tey Gris Bordeaux bi nga xam ne euh, def na année balance jóge na ci defet ndax mhm. combat bu mujj da ko ñàkk mook Balla gay 2 defe naa tey normal na Yékini Junior Tapha Tine moo ko mujj a daan yaakaar naa tamit war na ko mën a tendre la perche maanaam may ko loxo ñu bëri loolu defe naa ne Gris Bordeaux war na ko ko mën a nangul mais tamit logique combat bi wala pour mu gaaw pour mu am ki muy aju kenn la mooy giri Bordeaux parce que olof li olof di wax Gris Bordeaux mooy rëccagul bu yem. dëgg la donte bëgg na bëreeg moom trop. kon mën nañ jàpp ne logique bi donc am na. dëgg la euh, dañuy daal di. ñëw ci kaw mu euh, neex Gris rek. <laughs> ci kaw mu neex Gris. waaw parce que moom fi mu maanaam dafa xaw a devancer waa ji ma dëgg la voilà kii di amaneex démb gis nañ ni le côté le sunu laam quotidien quotidien sunu sunu laam dafa waxoon ci baabooy mhm. ci lu jëm ci retraite am ak yooyu noonu mhm. kii di amaneex nag moom nee na pare na pour jàkkaarloog mbar mbaroodi mbaroodi mooy mooy baabooy <laughs> mooy gaynde gaynde nee na it je vais le tabasser waaw jusqu'à ce qu'il s'affale moom daal nee na Babacar lu mu wax naralu ko jàmm dóor ba mu nooy <laughs> loolu dana metti waaye li li am mooy comme démb dañ fi doon wax retouram mm-hmm. te xalaatoon nañ ne retour bi ñu ngi wax Gris Bordeaux am a Neex mm-hmm. Ama Neex moom tuut moom dana pare naa te bu ñëwee itam du may dina mitti ah loolu bu fekkente ne baaboy day dellu si. Mm. bu mayee ama neex sens tam loolu day yokk làmb rek parce que ama neex xale la boo xam ne moom itam wane na ay preuve yu bëri ci làmb gëj na bëri donte waaye ci ndam lu leer lu gaaw la mujjee. diggante baaboo it gëj na bëri waaye tamit. baaboo euh, it ndam la mujjee. Mhm. bi muy bàyyi bàyyi ma ñoon la daan ca kaw la. Mhm. kon defe naa ku leen boole tam danga gis lu neex a neex ndax ñaar ñu bëri sañ-sañ lañu waaye duma baaboo yi nag ba mu nooy nepp nga daan ko ah ba booy bu desee dool ndax loolu dina yomb ama neex. daa wóolu boppam rek. Ah, <laughs> dañuy daal di eh. dem fële ca Kaolack kii di euh, président wu CRG di Mame Cor moom nee nañ euh, il préconise des innovations day waajal ay innovations maanaam ci loolu la ne. waaw ku yokkul yaa wàññi comme moo remplacé Bira Sène ca région de Kaolack. Mhm. yore fa làmb léegi. Mhm. defe naa ne war na yokk ci rek yi ñeex nag. maanaam indi ay innovation mhm. indi yeneen méthode yu bees ak ay doxalin mhm. loolu la ñuy xaar ci moom yàlla na yàlla def loolu mu bëgg mook équipe am mu réussir ko ba yóbbu làmbi kaw la foo ko biraa yóbbu ko amin amin yaa rabbi mhm. kii di euh, Malick Gningue moom daal di wax itam ci suñu làmb ne interdiction gouvernement pré euh, gouverneur et préfet d'organiser dans les régions moom daal li muy ñaxtu mooy euh, le fait que ñuy interdire ñuy organiser ay événement wu làmb ci biir région yi ok te préfet gouverneur def ko ci li mu wax. Mhm. waaw loolu moom su amee dama naan est ce yoon la man du ma ko jàppee yoon parce que lu tax mooy région de Dakar defe naa mooy capitalu Sénégal. Mhm. te defe lépp fii la ëppee. dëgg la yaa ngi dégg lu mu mën a doon moom. Mhm. Dakar la gën a bari kon defe naa tey bu ñu bàyyee Dakar ñu fay organiser. ah defe naa ne kon préfet yi ak gouverneur yi ah loolu moo war a tax ñuy tere ñuy organiser. ci yeneen man dina ma jaaxal yaa ngi dégg loolu nag. duñ ci mën a sori dañuy bàyyi ba xam lu gën a tax mhm. parce que tamit wax da ngay wax lu la leer boo bañee juum bu ñu amee lu gën a leer mhm. danañ ci def ay gëstu dañ xam ñoom yan logique lañ ko teg ba tax ñu tere ko mais defe naa Dakar actuellement ni fi làmb commencé jaxe moom ah defe naa ne mënu jaxe nu sax ci régions yi soxna uli dëgg la Babacar ci mercredi de l'arène la ñuy daal di ñëw mhm. ah, wax ci euh, CNG bi nga xamante ni misé na teg na ci taabal gi lu tolloog 3 millions euh, ci datu 7 avril bii di ñëw waaw mu mel ni làmb ji fi mu ne jax na de Ulysse. jax na 3 millions 4 millions 10 millions lu ne ah. yaa koy dégg <laughs> démb sax dégg naa 25 millions mise ah mu mel ni eh, fi mu nekk nii daal doy na waar. Mhm. a ah, Bira tamit daa mel dafa nar indiwaat lu bees ak équipe bi mu yore ni jiite làmbi réew mi. defe naa loolu dina am solo trop. Mhm. maanaam les mercredis de l'arène. Mhm. mercredi bu jot dina jéem a teg benn mise mu nar ko def le. 7 avril jëkkee ko mhm. muy 3 millions muy lu am am solo vraiment ñu koy ñaanal tamit moo équipe rek mhm. yàlla na réussir liñ ko dénk moom Bira Sène ñu ngi wax ay millions pare guñu kii di docteur syndicat moom it teg 1 million hmm? ca Mbour ca pour le 10 avril waaw ba tey mooy li ma la wax rek làmb jaa jax xam nga li simple li tax musique di bëri nii li simple ulimata bés boo ko découvrir da nga xam ne mhm. yemut ak dara dafa neex dëgg la yàgg naa ko Papa na <laughs> waaw loolu yàgg naa ko di dafa neex. <laughs> aywa Babacar moo nekkoon donc suñu dernier élément wu quotidien wu sunu làmb. Mhm. dañuy daal di euh, xuus ci bii nga xamante ni mooy le record ah comme ni ñu koy defee saa su ne tamit le record tey moom euh, dafa xëy dikk ak ñun ci Eumeu Sène bi nga xamante ni euh, dajal def na vingt combats yoo xam ne ak quinze lutteurs croisés. Euh, Eumeu Sène mu ne moom la champion des revanches dafa mel ni rek moom lu lu mel nit lu lu lu lu lu bokk ak euh, lu jëm ci revanche. Mhm. Eumeu daal moo fay moo fay buur. daal yaa aay waaw loolu moom parce que ku ne yaa ngi fàttali ko revanche am digganteem ak Gris Bordeaux. Mhm. defe naa ne kera waxoon na xat mënoon na leen njëriñam waaye da caa mujj jëlee ndam. Mhm. Lac de Guiers 2 bi mu war a bëreel. bu ñu njëkkee bëree dañoo mat si nii. ñu indiwaat leeral combat ba mu daan kon defe naa ne retour moom man na ko am na sax retour bu mu ñàkk muy mhm. diggante ak Modou Lo mhm. waaye ku ne xam ne ne tamit retouram ak Balla Gaye numéro 2 mhm. ba mu daanee Balla première fois ba ñu defee retour da ko da ko dafa daanaat Balla kon defe naa ne bu fekkente ne quatre combats yooyu rek bu ko jëlee trois yëpp di ay retour mu gagné maanaam mu gagné trois retours yi agent yi dégg ñàkk ci benn kon defe naa ne wane na boppam ci ay combat retour muy mbër moo xam ne moom Eumeu Sène bul ko mimal dara ci biir làmb lu a mën a parce que li tax mooy dafa tarbi yu bëre te daa mën a bëre loolu moom mooy li am te sénégalais xam nañ loolu mhm. te moom xam na loolu adversaire am tamit conscient na que ni ki muy bëri bëreel naanaanu kat la waaye li ma la wax jàpp ko de bu ñu fi yàlla bàyyi la 4 avril boo sàgganee jëlle bu rëy na am ci làmb jooju. incha allah dina neex lool. kii di Abdou Badji moom daal di wax ci euh, Eumeu Sène ba tey ci le mm-hmm. record ne Eumeu reçoit beaucoup de coups parce que trois points de suspension nag la ñu wax. Mm-hmm. lu tax muy jël ko yu bari. Mm-hmm. waa man de su ma gis-gisu bopp bokk na ci dafa ñimee affronter adversaire ba pare tamit des fois dinay xeexi te garde bi maanaam du ko du du normal. te loolu des fois soo ko defee pour nga jël ay coups dafay yomb ci yow. parce que tamit bëre du xeexu mbedd quoi. Mhm. bëre ay sema la ay tactique ay ay technique yooyu teg pour moytu coup buñ lay dóor ak soo waree dóor yow yooyu yëpp dafa bokk ci biir bëre. am nag des fois ni muy bëre yaram bi dina tàng ba. Mhm. day bàyyi loolu. des fois adversaire bi dina ko tuuse ay yoo xam ne ni mhm. day faral di am sax ay jafe-jafe moo Gris Bordeaux ramas bi defe naa kii jël na coup yoo xam ne ni entraînement ak résistance moo ko ci génne mais da doon daanu ji. yaa ngi dégg kon loolu defe naa ne tamit ki ko wax muy Abdou Badji c'est le directeur technique national de lutte mhm. kon defe naa loolu ñu war a jàngat la moom euh, euh, staff bi ko yore dëgg la Babacar mu mel ni démb euh, seeti woon nga kii di Fallou Ndiaye fële ca arène nationale mhm. loo fa jëlee Babacar waa mu mel ni lañu fa jëlee mooy xam nga comme Equivox moom làmb ko fi teg mhm. wala boog bokk na ci li ko fi teg làmb da caa bokk am ci cër lool ndax Vox Arena Fallou Ndiaye bu tegee mise 4 millions ñu àndoon ak moom Gambie mu teg ko samedi drapeau du Ndiaye ko dafay baax ñu jéem gëstu ji boo bokkoon tamit xool dem déplacé wu. Mhm. fekk ko ak équipe ba fii ci biir sa euh, euh, biir arène nationale. ñu waxtaan fa. Mhm. ah mu wax li dispositif yi mu jël pour samedi incha allah rabbi amateur bu fa ñëw moom xam naa dafa am benn jafe-jafe bu soobee suñu borom. yemu ci tamit le dis avril ku ne xam ne dafay dikkaat. Mhm. te nee na sax mën na teg ndax lii nii ni mu ko tuddee mooy ngalax la ko tuddee. ngalax pour gars yi war a dem wala waaw mooy 4 millions yi maanaam le 10 avril boo saaga ne mën na def 10 millions. boobu lay tudda xam naa suukaru koor bi te itam mu ngi xalaat sax 25 millions. pour fin saison mise kon moo lay wan ne kon mhm. dèjà fi mu nekk nii làmb ji yëngatu na trop ñu ngi ñaan yàlla saison bi déroulé si jàmm ñu bëre ko si jàmm que le meilleur gagne ci ci jàmm mhm. que le meilleur mhm. ci loolu rek la ñuy daal di tàggatoo ak yéen tëj euh, suñu journal de la l'arène bu tey jii euh, di leen jaajëfal bu baax yéen téléspectateur u Equivox TV ak képp koo xamante ni tey jii yaa ngi safoo làmb di ñu bége ñu ngi lay bége bu baax a baax di nuyu Fallou di nuyu waa Médina di nuyu ñëpp <laughs> sëñ Fallou Dia. Uh-huh. Ah, di nuyu ñëpp vraiment kontaan ci yéen encore une fois Babacar ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw damay santaat yàlla rek julli ci ki gën ñëpp muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan di ñaan yàlla. taafi si barkeem di ñaan yàlla si barkeem yàlla na yàlla jàmmal àddina bi jàmmal Sénégal dàqal ñu li ñu ragal rawatina feebar yi ak musiba yi ak balaa yi ak yi parce que am na loo xam ne moom moo ko man waaye ñun tamit nañu fexe rek mhm. jéem a defal yéeneente jàmm mhm. comme na ko almaxtum waxee woon yàlla na yàlla yokku leeram rek xam nga ñuy fexe fóot xol yi bu ko defee li ñu ragal yépp dinañu sori tàppe xol yi ni ko dabaax doon waxee mhm. yaa ngi dégg loolu defe naa mooy li am di la ñaanal jàmm yow tamit di ko ñaanal sëñ Fallou euh, dégg naa démb wax ji Fall fàllu loolu du du dara xam nga nit boo yëngutu ci dara ay nit di la jàppale mënoo def lu dul delloo leen njukkal mm-hmm. te ñi may jàppale di créer ay fans club ngir Babacar aw ma seen xam ne jàmbaar la ci ma ko ñaanal jàmm mm-hmm. foofu mu nekk sa na ko yàlla gën a kàttanal di ko ñaanal ba képp ku ñuy suivre mais fans club Babacar tamit ak Equivox du ma leen fàtte ñoom ñëpp ñoom Jigé maa leen di nuyu loolu la yàlla dogal daal di kontaan ci yow encore une fois rek di la ñaanal jàmm. amiin yaa rabbi ñu ngi jaajëfal suñu caméraman bi di Modou Khoule ak réalisateur réalisateur bi di Habib euh, di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen journal de l'arène.